salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi Mbacke ñi ngi lay nuyu man la Chérif Dia bu télévision Futurs Médias laaj bi ni laaj nag ci dëkk bi comme ñi ngi waajal màggal gi bokk na ci comme ñi ngi ci nawet bi jeexagul te mbiram assainissement nekk loo xamante ni lu soxal waa dëkk bi ndax gis nañ fi yenn saa yi euh, mbënn mi ni mu sonalee waa dëkk bi te am na ay projet yoo xamante ne nguur ak Sénégal am na ko fi ñu bëggoon a xam fan la toll ak lan moo ci seen soxla yéen waa dëkk waa ba nga xamante ni buñ ko saafara jafe-jafe dootul am ci wàllu mbënd mi bi ci des euh, wàllu kaaraange lay doon comme dëkk bu mag la bu mooy Ndakaaru mooy ñaareelu ville bu Sénégal war naa soxla mbir ci wàllu kaaraange te yenn saa ñu dégg fii ay jafe-jafe ci wàllu insécurité ñu bëggoon a xamit euh, kilifa yi ban gis-gis la am ak yan jéego lañ ci def ngir loola mën a dakk ba mu Touba mën a wuyoo euh, turam déggaat nañ fi également mbiram garab yi euh, am na si ab procès bu fi amoon ba ab avocat jóg bërki dem mu ne Touba am na ay trafic yu ñu fiy dégg loo xamante ne euh, mënut a neex kenn ñu bëggoon a xam également loolu lan moo ciy gis-gisu kilifa yi rawatina médicament yi ñu fiy dégg ñu ne dañ koy jaay te du jaar ci yoon loolu lan moo ci euh, jafe-jafe mbir yi loolu moo nekkoon sama laaj. Touba nag ku ci wax faaw nga dellu ci cosaanu Touba. Serigne Touba moo bindal boppam ba tax mu sanc dëkk bi dafa wax ne li tax ma sanc Touba mooy li taallumi wa taalim jàng ak yare waxoon na itam ne li tax ma sanc dëkk bi yaar tax mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi ndax Touba doy lu suñu borom dogal ci lu yàgg mboolem nit yàlla yi di ko xëccoo suñu borom jagleel mu ñëw fi itam fekku fi dara ab ay rabi àll fekk ak i garab Serigne Touba ànd ak taalibe si taalibe bi jox leen ndigal ñu gor dëkk bi boo fekkee ne Serigne bi doon réer di bàyyi ko Darou di wër dëkk bi ba gis ko fii ñu tudde kër Touba bi tey ñu fekk ko fi Serigne Touba. gorlu ko sanc ko taalif xasiid ak Matlabul Fawzayni muy lu dox digg ma borom mu ñaan fi mboolem loo xam ne bëgg na dëkk bi mel loo xam ne bañ na ni loolu kon Touba nañ xam ne li ko sos mooy dëkk la boo xam ne suñ borom da ko jagle Sëriñ Touba mbooleem lu mu ko fi ñaan itam suñ boroom may na ko boo gisee dëkk bi ak si tey loo xam ne téeméer at ak néew la lu ma ñaari million gi dëkk fa loolu xar féetal ko dëkk bu toll ne Touba itam am na kilifa ko daax booba Serigne Saliou dadaa wax ne li gën a yéeme de dëkk bu toll ne Touba nga wax ne ana ko ko sanc ñu ne dooma ngi nii dooma ngi nii ci biir kër gi loolu xar baax la féete kon Sëriñ Tuubaa loolu la ko suñu borom njëkk a defal mboolem loo fi gis itam nag moo ko ñaan suñu borom suñu borom njàmbaaru taalibe yi nag dëggu ci te feeñ ndax sëriñ bi dafa waxoon ne wajbu lahal xayra min al jihaati as sitti wa fiha anil afati mboolem suñu borom nag ma may fu xéewal mën a bàyyi ko ci àdduna rek dama fekk ci sama dëkk bi Tuubaa boo gisee lu fi nit jaay mu yomb ku fi dëkk sa teraanga yomb loolu pàgguteewu Serigne Touba Serigne Touba nag dafa am lu mu di digle woon ndax dafa fonkoon Touba Serigne Chant bu daan nett li di wax ne bu ma sànn gis ku bàyyi ko Touba balaa wax kenn day wax yow bu noppi am na ku sa wax ne ko yow mu jógee ci sama dëkk bu tedd ma nu def mbaa ndox mu njàkk maa ngay wàññi ko mu ne ko ah Mbàkke de loolu moom. ndox ndox ma day ñàkk lool ba tey mu ne ko lool de wax na giir bu gàtt dana jeex ndox ma dana fa sotti ko mu ne ko ah xanaa loolu mbàkk ku gudd fan loolu du ko fekk Sëriñ Tuubaa nag ku gàtt fan du fekkee dara ñu teg ci fan yu néew mu faatu kon pàgguteefu Sëriñ Tuubaa la bi Sëriñ Tuubaa di digle jumaay jumaay Tuubaa ji ba wax ne kenn ku ci ne joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett dafa am ndénkaane bu mu ci waxoon boo xam dafa ma di fàttali ndax loolu bokk na ci li tax Touba ak si fii tey 1926 ndax booba xam ngeen ne tubaab yi ngir bëggoon a gàllankoor liggéey bi dafa tax ñu tegoon sëriñ bi ay conditions yu métti ne ko bala ñoo may autorisation ngir nga maa a tabax sa jumaa ji ci Touba faw nga dajale lim bu bëree bëri ci xaalis ngir entreprise bi ko war a tabax faw mu am garantie bu wóor buy tax mu mën xam ne dana ko mën a liggéey. sëriñ bi woo taalibe bi yëpp ne kenn ku ci ne na nga joxe ñaar fukki dërëm ak juróom ñett loolu ci li sos yoon bi ba ba mu dajee nag sëriñ bi dafa dénkaane ak dénkaane boo xam ne dañ ko war de fàttali dafa wax ne sëriñ Malick Ndiaye mi nga xam ne moom la daay yéeneloo dafa wax ne maa ngi leen di digal ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fa na mooy maa ngi leen di digal ci lépp lu ngeen soxlaate wala lu ngeen bëggati rawat na lu mel ne néegu yàlla bii na ngeen ci góorgóorlu seen kem kàttan ba fa seen doole yam lu ngeen ci mënut ngeen dem ndax laxasaayu wuti ko wuti ko ba am ko ci anam gu sell fu ngeen ci jëm ba tëli fa ngeen toog xaar fa say jaalullahu ala usin yusra te rikki nag maa ngi leen di wartandiku wartandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seeni aajo it daañ leen xañ seen ngor tiirmal seen biir daañ leen ndax yaari gi yoo xam ne képp kum ne ceew ku ne war ngaa fexe ba sàmm ko ba du jóge ceew képp koo xam ne amoo ko it war ngaa fexe ba wuti ko loola nag la jiitu ca la koy xañ mooy ñàkk mooy fexe ba moom sa bopp ñàkk sa bopp ñaar bokk na ci li ci mën a dimbali nit man man man sa bopp moom sa bopp ak ñàkk sa bopp ndax nee boo moomee sa bopp doon nangu lenn moom la lu dul yàlla wala nga nee nangu keneen ko la moom nee na boo mënalee sa bopp itam boo ñagee sa bopp itam doon nangu kenn ko la yàpp wala nga jël sa yitte di ko wér nit ñi boo mënalee sa bopp itam doo jël say soxla di ko wér doomu aadama yi nee na kon nag maa ngi leen digal ci biir ndénkaan bi yéen ñëpp ngeen góor góorgóorlu ci jàmm yàlla te nangoo liggéey ba lépp loo xam ne soxlaati ngeen te mënu mënu leen ko ñàkk ngeen feex ba wutal ko seen bopp loolu ndénkaane boobu ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha sukkandiku ba raay bi bi kuñ ko ko tegee ci condition mu ànd ko taalibe Sëñ Tuubaa xam ngeen la ca rakkam yëpp doonoon tàmbalee Cheikh Mahodou Farid Cheikh Mahodou Bachir Cheikh Mahodou Amine Cheikh Mahodou Bachir ñu ko doon taxaw ànd ko nag ak Baye Fall yi xam ngeen lañ ci def am wàllu Cheikh Sëriñ Tuubaa yi nag kenn génnu ci kon booba ña ca doon liggéey ci xayma am na ñu wax ne tolloo na ci ñetti junni nit mu wàññi lu bari ci main d'œuvre bi ñu waroon a fay njàmbaar boogee murid yi wane woon nag ba fii mu ne moo andi Tuubaa fii kon mboolem lu fi di. xat-xat lu fi di gàllankoor gëm nañ ne lépp suñu borom dana ko saafara ndax dafa tàbbi ci biir ñaan ku sëriñ bi nag li ko ci war waxtu nekk ma ngi lépp loo xam ne war na ko wax dana ko wax lépp loo xam ne xam na ne lu ajowoo ci dëkk bi day ma nga ngeen xam ne ne sëriñ Touba dafa wax ne Touba ku fi sam xel indiwu saw xel dana la fi indi kon ñi fi ñëw ñëpp yaakaar lañ fi indi bu sañoon na kon bu fi ñëw ku ne li nga fi yaakaar suñ bon daal la ci dimbali moo tax moom guddeeg bëccëg amut soxlas boppam amut yitte li ko ñor mooy ñi fi ñëw ñëpp seen yaakaar te mboolem ko fi mas a nekk Sëñ Tuubaa tàmbale ci Cheikh Mahamadou Moustapha Cheikh Mahamadou Fadil Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Salihu Mbacké Cheikh Mahamadou Lamine Bara ba ci Cheikh Sidi Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Mountakha kenn ku ci ne sa yitte jëpp du soxla sa soxla bopp waaye soxla yi nit ñi la ci biir loolu itam moo tax lépp loo xam ne war na ko caa wax yoonu murit dafa am nu mu baaxoo te loolu fa suñ yéene mu soppi mooy baaxoowuñ di jàmbat ci rajo ndax koo xam ne boo waxee ñu dégg la nga war a waxal la ko war dëgg danga ko wax bu fekkente ne difu ko nag boobaa la nga war a jël ci sa responsabilité nga def waaye nag sëriñ bi. mi ngi ci ay yéene te gëm nañ ne itam allah balaa yàgg lépp suñ doom dana ko ci dimbale na nag ñi ne ci quartier yu sori am na ci ñoom yërmande lool ba tax na xam na ne biir dëkk bi sax liñ si war def bari waaye nag ñi ne ci biti bari ba daanaka ñi ngi bëgg ëpp ñi ne ci biir dëkk bi moo tax nag yitte ji li ci ëpp solo na lu jëm ci courant ak ndox ak yoon la ci ëpp lu ci ñëwate bu doon téeméer it ñu fex ba juróom benn fukki wala juróom ñaar fukki jëm ci quartier yu sori ndax dana gën a xëttal dëkk bi dana gën a wàññi seen coono loolu daal bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi xalaat na te ci la nekk te am na ci ay yéene yu boppam yoo xam ne nag eh, kilifa kenn du ko jiitu ci yoo xam waaye moom ku amee xalaat nag ndax sëriñ Tuubaa ku ne mission ba mu la def lool ku ne liggéey ba mu la def lool waaye moom sëriñ bi ci am na xalaate ak yéene boppam ci biir loolu itam ñu xam ne Touba dëkk la boo xam ne ni ma ko waxee rek amul fenn ndax dëkk bu toll ne Touba man ñaari million nit c'est-à-dire titre bu kenn nit moom loolu amul fenn jàpp na maire bi itam nga xam ne moo fi nekk sëriñ bi di ko tànnal boppam muy loo xam ne nit ñi def wate bi ñu koy wate sax dafa neex sëriñ bi mu du ko def rek waaye daanaka ay soxlu ndax woote boo xam ne benn liste lay doon loolu daanaka du woote ndax waaye démocratie dafa am génn kilifa gu mag ci àdduna koo xam ne sax du du du du ab jullit waaye dafa wax ne waatu wa démocratie mooy nit ñi lañ bëgg ñu àttaleen ci mu ne nag bu fekkente ne nag tubaab yi ñoom ni ñu dégg démocratie bokk te di démocratie ndax démocratie mooy la nit ñi bu fekkente ne nag ñoom dañoo jàpp ne ku ne joxe sa xalaat mooy démocratie sa waa Tuubaa tànn jël seen kàddu yëpp jël ko dóor ko ci biir kàddu sëñ bi loolu démocratie féetewu ko kon loolu itam lañ xam ci biir démocratie la kon nañ leen ci fekk si seen bëgg-bëgg fekk si ci leen seen gëm ndax léeg-léeg nga dégg ku sax ndigal amut waaye loolu ku koy wax da bokk ci yoonu murit ku xam yoonu murit xam ne ndigal moo ko fondé boo ci génnee ndigal dara desatu ci yoonu mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere kon loolu na ko ñëpp xam ne noonu euh, ci biir loolu itam kon ñi ngi sant ndax mënees sa ñàkk sant ñi nga xam ne ñoo seq dëkk bi di ci liggéey Serigne Touba te lépp di sosi ci sëñ bi di sosi ci kàddu sëriñ bi di sosi ci ndigalu sëriñ bi ñoo ñëpp ñu ay jàmbaar yu wér koo xam ne kenn ku ci ne la nga xam ne yaa ngi koy def bala ñoo xamoon njariñ bi tey nga xëy bàyyi ko kon la ci jiitu rek mooy maire bi nga xam ne mooy maire dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci dëkk bi ndax foofu itam am na tuuti du ci mat a leeral ndax nit ñi itam waxtu dañu ngi jàmbat bi dal ci seen kaw waaye nag nit ñi it dañoo fayut comme yërmande sëñ bi dafa am ba nit ñi fayut nag moo tax ñoom tam liñ mën da lañ mën a ndax Touba ginnaaw Ndakaar moo cëpp boo demoon Ndakaar tey seen budget dem na ci ñeent fukki milliards Touba mënuñu am ñetti milliards kon daan Ndakaar meeram Ndakaar ban Touba waru ko boo demoon Thiès Touba mën na koo xaw a ñàkk budget maire tu maire Thiès moo bu Touba loolu tam kon dafa ma taxam ndax yërmande sëriñ bi ñi nga xam ne sëriñ bi dafa bàyyi nii seen cooba rek ba séddi leen ci moo tax ñoom itam lañu war a mën mënuñ ko ndax euh, li ñuy wax bala ngaa jàmbat li la war danga koy def ba di gërëm it day daayira Hizbut Tarqiyyah ndax ñoom soldaari Sëriñ Tuubaa lañu ndax dañoo tontul siñ Tuubaa ndax tubaab yi dañoo jàppoon ne ci njàngum tubaab ci lañuy fexe ba rekki ngëmug taalibe Sëriñ Tuubaa indi ko soldaar yoo xam ne ña yaroo ca daari tarbiyee ñoo ñoo leen posté wala ëpp ñu seen dund gépp ñu jeexal ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa amul guddi amul bëccëg boo leen bettoon xaaj guddi ba demee ay xasee dañu ko lépp lu leen sëriñ bi wax amuñ ci xalaat amuñ ca jeexintal amuñ ci lu ñu lu ñu lu ñuy nattable wala lu ñu bëggoon wamaaxoo li mu waxoon Cheikh Mouhamadou Mountakha bii ci guddi ne ko wamaaxoo salabul ixtiyaar li xusni zannihi mooy ab taalibe kat dafa war a fexe ba lu ko sëriñ bi wax wóor ci andi tànn boppam ñoom yàlla defal na ko ndax dund naa ko ñoom ndax ba ma yore liggéey bay léegi mën na fukki at te loolu laa xam ñoom di gërëm itam daayira muqaddamatul xidma ñoom itam ñuy ay jàmbaar. di ñoo xam ne ñëpp xam nañ li doon ci yoon xam nañ liñ bokk ci biir yoon bi waaye dañoo jël lépp jaayante ko ngir Sëriñ Tuubaa dara soxlawuñ dara jël seen dund gépp di ay ndaw jaayante ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa di ko liggéey ci jumaa ji te laaj ñu dara kenn fayu leen ci dara ba jumaa ji ku xam ñaar fukki ci ginnaaw ak ni mu mel tey da nga xam ne jàmbaar dëgg lañu di gërëm it daayiratu Safinatul Amaan moom daanaka mooy al amru bil maaruf wan nahyi ani munkar ñoom itam seen taxawaay ndax li ñu def ku ne xam na ne dañoo nekk ci li ñuy wax réewum laïcité te Tuubaa di dëkk boo xam ne dëkku diine la kon gendarmerie ak police ci ndigalu sëñ bi li ñuy tënku waaye am na loo xam ne sëñ ko tere ñoom ñoom nag ñoo wutu sëriñ bi ci loolu lépp loo xam ne sëriñ Tuubaa bind na ko ci mbënd foofu sëñ tere ko. wala lépp loo xam ne wax na ne bëgg mu am ci dëkk bi guddig bëccëg ñoom itam lañ ca man ñu ngi ciy góorgóorlu guddig bëccëg di ko sàmm ba dëkk bi tey di waxtu wu ne xar kanam bi dund la xar lislaam ku fi dikkee xam ne dëkku jullit la di gërëm it day rawdu rayaxiin ñoom itam ci wàllu xam-xam ñi ngi liggéey liggéey bu rafet liggéey bu am solo boo xam ne màggalu tubaab yi diiru ñaar fukki at yi leeral nañ ci nit ñi bañ gën a xam Serigne Touba ak ak njàng leen gën a xamit mbindu Serigne Touba di ci taalifi téere di ci bind di ci def ay waxtaan yoo xam ne mu ngi jariñ nit ñi waxtu ne ñoom itam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax ñoom itam dañoo jàng ba am ay diplôme yu kawe jaayante ngir Serigne Touba di gërëm itam waa Touba ci kanam ñoom yàggut ñaari at ak waaye wax naa ne jàmbaar dëgg ngeen ndax daayira bu ëpp at dajal lu ma ñetti téeméeri million loola leneen ko may mooy ña ko jiite ñëpp nit ñi xam nañu borom posté xam na ni itam de sëriñ bi daa wax rek di di leen laaj luñ mën te di ko defuñ xam dafa mel loolu bokk na ci li leen may loolu. di gërëm itam waa xuddaamul xadim ñoom itam seen posté ak seenu jaayante Sëriñ Tuubaa ndax lépp luñ dégg ñu wax ko te méngoowut ak lu ñu war a wax yoon wi duñ ca tàggu ndax Cheikh Saliou Mbacké kat dafa am lu mu jàngi doon dafa waxoon ne taalibi bu ñu tooñu sëriñam boo fayu du tàggoo ñoom nag loolu ñu ngi ciy góor guddi ak bëccëg di ci luñ mën ak luñ luñ mën waa xidmatu xadim itam ñu ngi leen di gërëm di gërëm itam waa daayira Matlabul Fawzayni ji nga xam ne ñoo seetal dëkk bi jàmbaar lañu waxtoo ne ñu ngi ci guddi ak bëccëg ak daayira Matlabul Fawzayni bi nga xam ne hôpital boo xam ne ay pir ko tabax ñoom ñoo ko jëkkati ci Sénégal def ko addee Sëriñ Tuubaa ñàkk ci milliard di gërëm itam waa Maa-u Rahma Maa-u Rahmati ñoom jàmbaar lañ lool ñoom la sëriñ bi dénk ndox mi ñu di ci góorgóorlu di ci di ci def ci te di ci bés def def posture di gërëm waa rabita bi nga xam ne ñoo yor njàngale mi kon ñoom itam ñu jàmbaare la ndax alxuraan moo tax Serigne Touba sëñ ci ñoom tam ñu ngi koy sàmm di ci def yitte di ko ànd ak Serigne bi waxtu ne kon yii yëpp mu wane na yoonu murit Serigne Touba defal na leen ñoom ay fondation yu dëgër yoo xam ne lépp loo xam ne bëgg nañ ko te am ca dogg am ca positif buñ ko defee suñ doon lay lay ci dimbali di leen ci gën a soññ it ñu xam ne fu yoonu wi àggit loolee leen fa àggale ndax. toole àllarba yi moo jur daayira yi ndax toole àllarba yi dafa dajale lu bari ndax co cosaan ni daa deme tund wu ne ña fa dëkk dañuy seet ki nga xam ne fukki kilo gerte la mën a ak ki nga xam ne dooleem la ak ki nga xam ne waxtoom la am ñépp daje fa di di di di di di bay tool bi xam xàmmewuñ ci ku dëkk fenn wala ku bokk ci xeet kon loolu bokk ci liggéey yi nga xam ne Serigne Touba liggéey na ko ndax tubaa dafa jur ay Touba yu bari bari toore àllarba yooyu nag moo jur daayira yi ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko njëkk a sos tudde woon ko diwaanu Mouride te booba moom ci wax moo ko jiite te rakkam yëpp cere bokkoon suñ Modou Obale ca la bokkoon suñ Modou Mamoun ca la bokkoon suñ Modou Farma ca Farmata bokkoon suñ Modou Xaban ca la bokkoon mboolem seex su mag si sëñ Mourou Moustapha Fall ñëpp ca biir daayira boo la jox mu tuddoon diwaanu Mouride kon nag loolu ñu ci soññ ñi ñu xam ne lu doomu sëñ Tuubaa bokkoon sos ko loolu jumbul kenn te it laa yastawil qaa'iduuna minal mu'miniina ghayra ulii darari wal mujaahiduuna fii sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim katoo këram denc xaalisam ak alalam mënta yem kat ki jaayante jël alalam ak waxtoom def ko ci Sëñ Tuubaa loolu suñu borom la ko wax ci alxuraan kon dëkk yooyu nga xam ne Serigne Touba sanc na ko dafa jër ndax Touba département bépp ak lu ko lu lu lu ci tegal lu bari sax fu ci ne dëkk bu ci ne Serigne Touba joxe ndigal borom mu sanc ko na mu ko na mu ko na mu ko daa digle ne Cheikh Mouhamadou dafa waxoon ne bi mu leen di sanc la dafa leen waxoon ne bu dëkk bu ngeen ci sanc da ngeen wut fóore ak koo xam ne ku dégg ku jàng xam-xam ak ku jàng alxuraan wut fa buude wut fa tëgg wut fa lawbe wut fa ndaw lu jub mën a yor ba nga xam ne képp ku nekk ci bitig ci dëkk ba doo wuti fenn lenn di ko soxla ndax li ñuy tuddee euh, alxijaru te mooy immigration tey te loolu it ku ma tuddee fu lislaam àgg moo moo ko fa àggale ndax Jaafar ibnu Abdul Muttalib ca Éthiopie ñëpp xam na ne bokk na ci tasaar lislaam Muaaz ibnu Jabal itam ku xam na ni xijjir boobu bokk na ci li tax lislaam yaatu fii ci Afrique itam eh, li fi indi lislaam mooy ndax gàddaay yett ka tax li di gàddaay mooy gàddaay ngir rawale sa diine mooy inna ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'budun ak ki nga xam ne day gàddaay ngir rawale xam-xamam faloola nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqqahu fi din ak ci gàddaay ngir wuur si bi mu tëdd loolu mooy huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha loolu nag mooy jur dëkk yi am tey ci yoonu murid dinaa ci indi ñaari seere ndax benn bi ki ko seere ab jullit mooy sëriñ ma lépp nett mooy li ma nett leen ci Cheikh Mawlid Moustapha mooy bi mu sanc Taïf ci la ko ko Cheikh Amadou Moussa wax ne ko sëriñ bi kat moo ñu dugal ma Cheikh du Fall dina dëkk bu ñuy sanc nañ ko sanc nii te gis ngeen tey Taïfam àgg am ci beneen boo xam ne ka ko seere du ab bi mooy Paul Marty dafa bind ci Daaru Bayre Daaru Bayre maam Cheikh bi moo ko sancoon mu wax ne waris na leen ak kañ te tagg leen ndax dëkk la boo xam ne soriwul Cees waaye mu wax ne ko Seex ba sanc ak dëkk ba fu mu àgg ak la fa daje wax ne indi tabax def na fa jàkka indi na fa kuy jàngale alxuraan am indi na xam-xam mu ne ko toll ci juróom-benn at ba keroog nga yom fukki at ak juróom nee na sa yitte jëpp mooy jàng boo ko weesoo nag neen daan la tàggat ci liggéey ak ak ak ak ak ak nangoo liggéey mu ne def na fa nag benn tool bu mag boo xam ne lépp luy ñor ci réew mi def na ko mu a yemu ci it fexe na ba mboolem lu nit di soxla ci am njaay ci wàllu commerce fexe na ba am ci dëkk bi ba mujj na saxaar gi nga xam ne daa jaar foofu jëm Ndar saxaar gi daa gi dem Ndar ak gi jëm njaarim mooy jëm Tamba léegi nit ñi ci boppam ñoo mujj ñaan ne dañoo bëgg ñu fexe ba defal leen fa alt boo xam dafay wàcce ngir mboolem li ñu soxla am na fa kon loolu itam mu bokk ci xebaax yi Sëriñ Tuubaa ñu bindaat itam ci dëkk bu ñuy wax Tuubaa nga xam ne Sëriñ Gaawaan moo ko sanc ñu wax Sëriñ Gaawaan nam sanc dëkk ba ak fan ko fekk ak lam fa def bokk na ci li ci gën a kiimaane ndax wax ji dafa gudd moo tax la ci gën a kiimaane nga xam ne Sëriñ Gaawaan def na ko fa mooy bitig yi nga xam ne def na ko fa ba lu nit soxlaate doo dem Ndakaar wala fenn waaye bitig yooyu da koy am mu ne li ñu tuddee marché yi usbu'a yi nga xam ne mooy marché yi ñuy def ngir ay bis nee na moo ko fa moo ko fa taxawal nee na te yëngu ci nee na saa suñu accès ci bis bu ñu jaayee ba ngoon ñi jërlut ñëpp day dajale seen marchandise jënd ko ngir soññ ko ñoom mboolem li ñu doon def defuñ ko ngir waaye dañ ko doon def ci wabtaxi fi ma aataaka allahu daara laaxirata wala tansa kon xam naa ne ci dëkk bi daal mayees na ci yamale foofu wax ji ndax moom wax ji boo ko toppee du jeex te desaan na waxtaan bu mujj mooy li ci màgg bi daal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 di sëñ Ibra Xujja moom it gis ngeen yitte pëstéef yi ba mu ca def ba ca def mooy sëriñ Sidi Jenn bu sëriñ Naar Jenn mooy gis ngeen liggéey ba mooy salle bi nga xam ne mën naa am cérémonie officielle bi ci jëmmi jamono xëy na du ñàkk ñu di ko fa defee ba ca dolli ko waat mooy eh, wàkkee sëñ Aliou Diouf Lambaye ndax ñoom ko ne xam ne ci ñi sanc yoonu murid jàkka yi ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo ñu di ko liggéey fii ci kër sëñ Tuubaa gi itam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 dana ci waxal boppam leer na ko boppam ndax nee na lee naa la yum fekkoon ay kilifaam bàyyi ko fi kon liy ngor ci moom mooy njëkk àggale loolu waaye incha allah fas na yéene daan leen wax dëgg bu mu ko tàmbali te du yàgge ndax lu ma ñaar weer muy liggéey bu rëy boo xam ne moom mooy yitteem kon ñëpp war nañoo takk am ci positif ànd ceeg moom te xam ne lam ci bëgg moom ba mu ko ba mu ko bëggee rek ci ko suñu borom dogal ndax Eh, Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne Sëñ Tuubaa du santaane mukk lu dul am te du sant mukki du ma def loolu nag du fi jubbu